une télévision au cœur du développement di gërëm képp koo xam ne yaa ñuy suivre à travers la diaspora un partout sur le continent africain tey li ñu waxtaane tey si gëstu bés bi mooy lan mooy assemblée nationale mooy pencum ndawum réew mi assemblée nationale nag ñu bari xamuñu ko dañ koy dégg à travers les médias tey moom lañu gëstu gën leeral askan bi lan mooy róolal lan mooy waru war wareefam jëmale ko si askan bi euh, foofu nag lañuy càmbar lépp loo xam ni jëm na si jafe-jafe réew mi lan mooy député mooy koo xam ni yaa ngi toggal sa gox fële ci assemblée nationale bu fekkee ni am nga benn situation bu urgence bi gox muy ñàkkum ndox muy ndóol muy leneen ak leneen yow en tant que député am nga sañ-sañ euh, def benn Euh, proposition si teewaayu président de l'Assemblée nationale monsieur Moustapha Niasse ak député yi fa teew yëpp muy opposition muy majorité présidentielle nga ne lii laa gis sama quartier lii laa bëggoon ngeen saafara ko nu ma gën a gaawee askan bi moo ko laaj. député nag boo xoolee jamonoy Senghor 1960 atum Lamine Gueye moo njëkk a nekk président de l'Assemblée nationale teg si Amadou Cissé Dia ñu bari jaar nañ fi ku mel ni ñoom. Euh, Abdoul Aziz Ndaw ñoo ñëpp jaar nañ fii ñoom ñoo doon jamono yu présidence bu assemblée nationale euh, jamono yi Senghor ba jamono yi Abdou Diouf amoon nañu ay député yu mucc ay ñoom dañu def ay proposition yu am solo euh, di wax bébétu askan bi di wax seen i jafe-jafe mais li ñu gis tey assemblée nationale dafa gën a jéggi dayoo député yu njëkk yi dañu ànd ak dal ànd ak yar ak teggin mais te da ngay dem assemblée nationale doo mën a ràññee sax kan mooy député lan mooy présence am si biir l'hémicycle du parlement. Euh, xam nga nag euh, assemblée député bu fa teg tànk war nga mën a défendre sa gox défendre l'intérêt du peuple moo tax askan bi ñoo la fal nga mën a euh, joxe say kaddu du da ngay assemblée di fa nelaw di fa xuloo di fa ŋaayoo. loolu du réelum parlementaire parlementaire dafa war am fulla ak fayda parlementaire dafa war am responsabilité dafa am ce qu'on appelle le sens républicain euh, fa la ñuy lépp loo xam ne si ay projet de loi projet de loi yi ñuy càmbar euh, amul parparloo amul xaaj seen askan bi gis si seen bopp loolu bu ñu ko defee Sénégal du am benn gàllankoor Sénégal naam réewum démocratie la bien sûr ñun royukaay la sur le plan du parlement tey parlement bi boo dem tey sur le continent africain ñu ngi jàppale ay ñu ngi jàkkaarloo ay jafe-jafe et tout récemment fële ci RDC gis ngeen le président Tshisekedi dafa tas assemblée bi tas sénat bi tas ce qu'on appelle la primature la nekkoon si ay jafe-jafe moo tax jamono ji mi ngi euh, farat un nouveau gouvernement am na euh, farat aussi un président du parlement et un président du sénat loolu euh, mooy réew réew bala lépp looy def da war a avertir ce peuple lépp looy def euh, muy le président de l'Assemblée nationale muy le députés muy les majorités muy l'opposition war nañ toog di diisoo di waxtaan càmbar jafe-jafe askan loolu mooy assemblée nationale tey gëstute bi nag xam ngeen ni euh, sagara yi xeeñ tey la ñuy saytu li naan le onze députés ce qu'on appelle onze députés yoo xam ni ñoom ñooy saytu tey ci raañu euh, ndax dañuy tekki euh, mbubbu député usman Sonko tey nañ koy waxtaanee fële ca assemblée nationale jamono ñu may wax ak yéen tey euh, heure bii ñu ngi koy waxtaanee ñu ngi koy gëstu bu baax mbirum Ousmane Sonko nga xam ne dañu ko tuumal si xale bi moom yëq Adji Sarr indi na ay coow ay jafe-jafe fii ci biir réew mi partout sénégalais ngi koy ñaw tey ba demee ci à la diaspora sénégalais ñi ñaxtu ñoom. lan moo leen tax a métti lan moo métti Sénégal yi mooy démocratie bi nga xam Sénégal ñu ngi gën di jéggi dayoo ak loi bi nga xam nag nguur yi teg na si loxo ñu ne bon seen sago Sénégal dafa nekk royukaay am matière de justice justice bi ñoo def seen liggéey bañ a séntu état justice boo xam ni war ñu ànd ak état justice boo xam war ñu leeral askan bi lan moo tax ñu teg leen foofu ñu mën a atte askan bi bañ am ay parparlo mbiru Ousmane Sonko rek doy na waar Euh, tey foo dem si place euh, dans les places publiques dans les un peu lu ñuy waxtaanee mooy l' affaire Ousmane Sonko xam qui a défrayé la chronique au Sénégal loolu mooy euh, assemblée nationale yaakaar nañ tey ak pencum ndaw réew mi su la présidence de monsieur Moustapha Niasse ñoom tey ñoom ñoo war a gën a askan bi ndax dañuy tekki ndombal tànku Ousmane Sonko yàlla ka xam tey rek les commissions ak boobu tase. alarba li naan une session plénière euh, boo xam ni 17 députés ñooy tase ñu mën a euh, saytu bu baax li jëm si mbirum Ousmane Sonko moo tax gëstu béy bi tey gëstu bës bi tey ñu ngi ko jëmale si pencum ndaw réew lan mooy lan mooy assemblée lan mooy rôle lan moo ko tax jóg ma ni assemblée warul nekk xuloo warul nekk xiiroo ngaayoo assemblée li ñuy voté ay projet de loi assemblée li ñuy càmbar leeral askan bi lépp ñu lépp ñuy voté na si askan bi gis seen bopp na moo tax ñu fal ay député député dina fal di fay weer bu jot am nga euh, charge financière euh, am nga am nga oto am nga essence dara manqué loolu ma ne député war nañu def seen liggéey di dem di nemmeeku seen population si gox ko xaan yi xam sur le plan sanitaire sur le plan euh, de la pauvreté xool ndax sa koñ manqué wul courant manqué wul ndox loolu mooy député mais député dem assemblée nationale di tàccu loolu lañ ko war a dépassé démocratie lan mooy démocratie démocratie dañ ko war a euh, ku ne dem démocrate la rek war nga leeral war nga euh, dawale yoon démocratie du dictature démocratie du jaay doole ba si partout tey si askan baa ngi jooy ku dégg bëccëg muy pencu ndaw réew mi muy dans l' administration de toutes les institutions républicaines ma ne war nañu di gën a góorgóorlu que Sénégal ñu ñoo ko bokk suñu député yi ni ñu gën a góorgóorlu di euh, wane fay fayda loolu mooy parlement parlement du ñëw du dóorantey kurpeñ di wax naa ko du xiroo ngaayoo parlement leen rek di voté projet de yoo xam ni askan bi gis seen bopp loolu mooy loolu mooy assemblée nationale tey boo demoo tey euh, dans les pays développés gis ay assemblée am solo gis ngeen tey en France y la démocratie aussi États-Unis gis ngeen fan yii passé bi ñu gagné Donald Trump dafa bañ ni moom moo gagné gis ngeen euh, au Capitole de Washington y a eu cinq morts euh, ay ñoo xam ne si des extrémistes wéeru si Donald Trump ñoom tey ànduñu si victoire boobu ma ne lañ ko mujjee gagné dañu war a nangu ni que démocratie mooy lépp dans la vie. Euh, Assemblée nationale bu Sénégal ñoom ñoo si des l'affaire Sonko mi ngi gën di jéggi dayoo ma ne nañu ànd ak dal ànd ak yar teggin. événement yi ñu gis fan yi passé euh, ba askan bi ñàkk si seen i seen i bien loolu dañ ko war a ñaawlu